les jeunes c'est très important parce que wax dëgg fa yàlla am na ay articles yoo xamante ne bu génn léegi nag lu waay neex rek wax ci internet bi déedéet parce que daan euh, mun na la ci fekk et je pense que bu ci kanamee ki nga xamante ne moom moo di Mairie Bey dina ko gën a fi ci bala ñuy dem na ci la touche d'humour dafa am yenn yoo xamante ne day dal doomu aadama te comme ni ñu koy waxee rek dund ak dee ñoo ànd ba tax na fi mu ne nii fi a taxaw xam ngeen ni Abba moom moo fi waroon taxaw mais malheureusement dafa am li nga xamante ne moom moo di benn tiis mhm. un donc kenn koo xamante ne dafa bokk ci stafam di xaritam mhm. di doomu ndeyam je pense que dafa ñàkk waajuram bu jigéen ba tax na looloo tax tey euh, mhm. kenn deful sax normalement tey naka jekk Cees la ñu waroon nekk mais looloo tax defuñu fa muy suñu grand bu baax ah, muy suñu grand bu baax ni ku baax muy Ibou Diagne Ibou Diagne ñu koy masaw bu baax a baax parce que ñàkk waajur moom dafa metti ñàkk ko ki rek dafa metti waxuma la ak waajur bi nga xamante xamante moom moo la jur ñu koy masaw bu baax a baax di ko wax suñu yaay jooju noonu yàlla na ko yàlla xaare àjjana mm-hmm. mu yàlla leeral bàmmeelam mu rëcc sax lu mu fi doon ñëwee yàlla na ko Seydina Mouhamed teeru parce que ku bëggoon Seydina Mouhamed la oh, man euh, démb seede yi ma dégg fa la ci rob bi rek loolu rek doy na sëkk loolu rek doy mm-hmm. mu nekk maire bu baax waa kër googu danoo baax trop di nuyu waale sama ménagère bébé daaro di mm-hmm. nuyu waale ñëpp Ibou Diagne jabaram soxnaam dafa baax ma man moom laay woowee mooy sama ménagère muy bébé daaro kër googu noonu fa la ñuy defee suñuy regroupement Abasso oh. dañuy proposer hôtel pour ñu dem fa def regroupement abasio mais ñun kër googu lañ miin fa lañ xam ñu ñëpp fa lañ ñëw dañuy ñëw kër imaginel ay groupe comédien fu ñu mën a daje mhm. yenn fa matin midi soir ba guddi trois heures du matin dañ fay mhm. nekk def lu ñu neex ci kër gi wallaahi wallaahi man ak man ak samay moroom rek def fa bruit bu nekk doo dégg maire bi wax doo dégg kenn wax ci ñoom oh. te au contraire sax da xool seen kanam gis ñi nii ñun li ñuy def fii da leen neex mm-hmm. kon loolu ay nit ñu baax rek ñoo ko mën di leen ñaanal yàlla loolu yàlla na mm-hmm. ñu ngi kontaan di ànd ak yéen naqar bi di ànd ak yéen bi mm-hmm. di ko wax yàlla na ko yàlla xaare àjjana Adja Marie Lo yàlla na ko yàlla xaare àjjana ci barke Seydina Mohamed au nom de tous les comédiens d'Aba Show ñu ngi leen di siggil di leen masaw bu baax a baax a baax a baax macha allah donc dégg ngeen ko comme ni mu ko waxee rek on associe le groupe Futur Média s'associe à toute la famille bi nga xamante ne moom moo di la famille de Ibou Diagne di leen di jaale li nga xamante ne moom moo di seen ñàkk waajur bu jigéen bi de ñu gën ko xamee ci turu Adja Marilo donc ci turu Aba ñi ngi leen di jaale di leen di masaw te xam ne ñoo bokk nakkar bi bokk nakkar bi sax moom moo tax fi nga xamante ne moom moo di tey ñu waroon nekk fee ca Thiès def nag li nga xamante ne moom moo di Aba Show et les émissions mm-hmm. euh, de li nga xamante ne moom moo di de la TFM ñu ajandi ko ndax li nga xamante ne moom ki ñi ñàkk dafa euh, sore ci ñun que comme ni ñu koy waxee partenaire la du sax xarit mais partenaire la et puis ñu koy massaw bu baax a baax waaye je pense que li ñuy wax rek euh, tout le temps euh, àddina moom ak li ne mel ñoo ànd mm-hmm. donc on va rester toujours ak yi nga xamante ne nag moom moo di Toch rapidement mm-hmm. mu jox ñu nag les informations yi nga xamante ne tout le temps mm-hmm. day nekk lu dëggu waaye da ci rax li ñu naan ñamaxtaan ak reetaan ndax samedi tamit dañuy soxla tuuti bégee mais tamit aba aba aba show tour bi c'est reporté pour euh, l'autre semaine l'autre semaine que dafa waroon nekk le 22 Thiès le 29 Kaolack léegi le 29 mooy Thiès. ñu ah, xoolaat semaine bi si topp ñu xool nu demee Kaolack incha allah kon waa Thiès nag ñu xaar samedi 29 ñu ñëw foofu noonu yëngal ko ba ba mu yëngoo yëngal avant nag ñuy dem Thiès fii la ñuy commencé mhm. Dakar Ndiaye Jal Diop mhm. Tata Mado Sénégal ba Sénégal neex gi mu neex man daf ma dépassé déggal lii bébé Sénégal réew la moo xamante ni man damaa yaakaar ni jeunesse bi rek ñooy ruube mais léegi paa yi si boppam ay paa yi dañuy toog à direct di ruube di def lu leen neex. c'est à paa man dama bëgg ñu may ma. Euh, vidéo bi. vidéo wu père taal ngol-ngol. wax dëgg yàlla du dara. man élèves yi léegi koo ci testé sax xamul tous. élève bu ne université naa un mouton. lii du am njàng. wax dëgg yàlla du dara. man élèves yi léegi koo ci testé sax xamul tous. élève bu ne université naa un mouton. Eh, astafurlaa lii jar na yuuxu lii dara yuuxu man man paa bi mu ne jàng ñu xamuñu dara xamuñu tous. non il a raison. waaw naan ndax paa yi ñooñu ba ñuy jàng ñun jàng non il a raison moo nekk si dëgg élèves yi tous xamuñu dara. Mm. élève bu nekk université man bi ne élève bu nekk université damaa pause. <laughs> ndax foofu étudiant yee fa nekk foofu étudiant fa nekk. ay sama doom ji élève bu nekk université ma pause nga ne père defal ndànk. <laughs> yaa ngi ñuy yuuxu depuis sànq yaa ngi yuuxu suñu grand élèves yi. waaw ñu noppi mais boo bëggee ne élève bu nekk université. père da ngay a daal mais est ce que bañul ku ko kar uh-huh. paa bi ne élève bu nekk université. Uh-huh. nan la un mouton. ah ah, ah, ah. damaa yuux ba suñu waa kër ñëw man leen ñëpp ñun yéen ñëpp toog leen ñoom ñëpp ñu toog man man su waxul un mouton. lan laay wax ma commencé remettre en question man ci samay étude <laughs> naan man la samay professeur xamul dara. Uh-huh. wala man la jàng bi changé ci diggante bi. Mm-hmm. parce que man damaa teel a bàyyi. wala affaire dafa maa raw mais man la ma fa bàyyi woon. waaw un mouton la. waaw mais léegi paa bi yuuxu nañu gëdd ñu harcelé ñu. waaw ne ñu du un élève nu muy nekkee université naan un mouton. ba du une mouton la papa wa. ah si c'est pas Jean c'est ah, Paul. père. <laughs> yaa ngi waaj indi problème bis bu ñu commencé wax. une mouton déedéet lii sama problème du une mouton de. sama problème nañ ko dégluwaat dimbali ma parce que lii man lii daf maa rëcc. ma ah, kon déggu non nañ dégluwaat lii. déglu lii du am njàng. wax dëgg lii am njàng wax dëgg yàlla du dara man élèves yi léegi koo ci testé sax xamul tous élève bu ne université naa un mouton. lii du am njàng wax dëgg yàlla du dara man. bis bu ñu commencé wax une mouton. père su ma taxawee fii wax le brebis bu mu la métti <laughs> père su ma waxee le vache bu mu la métti wallaay su ma waxee la bëf bu mu la métti lu neex waaye léegi mu nopp eh, la bëf ah loolu looy wax looy wax juutal nañ un yeeg uni. wax dëgg fa yàlla. li moo tax engrais neex engrais da ngay ñëw rek ne. engrais ah, da ngay ñëw ne ësib. mais bébé xoolal. xatar bi la ah, xatar bi la waaw kañ li Béri wax. waaw xëy na nu muy waxee doole tàng bi c'est que man euh, pa man lii jaral na ma dem 2S di mercenaire. déedéet c'est que pa bi émission am mën na mat une heure de temps moom kese mooy toog. jàkkaarloo caméra bi. une heure de temps day <laughs> di wax te booy dañuy dugg di woote di ko ruube. waaw xol bi di tàng muy yëngu. te taa Mado booy yi ñoo nekk dëkk bi di ruube paa yi xaw ma ñooy ruube booy doy na waaw ndax oustaz bii nekk ci tiktok bi. ayca oustaz bii nekk ci tiktok bi. ban oustaz noonu man kii dafa maa dépassé. kii waa ji. lu le loolu eh, xool eh, wóor na yàlla. Eh. xoolal. kii laa xam kii laa xam seul oustaz boo xamante ni il répond à tous les questions. question bu la jaaxal ci àdduna laaj ko ko dalay tontu. mais daf lay jàngale. donc looy jàngale ci ay booy yi di la poser question naan la <laughs> alors oustaz dañ koy bindal de. déedéet man damaa gént doon nelaw. safa saw dugg ci duus bi di saw far yeew gis ni damaa saw lal bi oustaz ñëw mbokk mi nee na da doon nelaw <laughs> gént dugg ci duus bi di saw far yeewu sawlal bi. du dara. Ah. da ngaa sawlal bi rek. <laughs> mais loolu tout simple. mais écrage tos de kii dama koy défendre. booy bu loolay mhm. particularité. waaw loolay def mhm. xoromam. parce que moom day jàngale. donc xam na ne nit ñi dañ koy ruube moom da di topp ah, ci ruube bi da leen di fekk ci ruube gëm naa loolu ndax seetaan naa benn booy bu ko bindal ne ko euh, oustaz lan mooy sa plat préféré. mu waaw mbokk mi nee na oustaz lan mooy sa plat préféré. sama plat préféré ceebu jën la. bu fa yemoon mu neex na am bëjëg ak suul mais suul bi bu leen ko suul suuli leen ko. Eh, waay Samba daa wax bëgg bëgg man man man man man man man Sénégal man paa yi léegi bu defee nii ñun léegi lu neex mun nañu que xam nga TikTok nit ñi dañuy commenter lu bëri donc moom mooy tànn. Ah, moo ko tànn xam nga kon li muy def kon moo ko neex. waaw kon moo ngi ko neex. day jàngale duñu génn TikTok bi te duñu bàyyi paa yi. déedéet ci kan di takk ñaareelu xale yi. <laughs> père yéen a ngi ci ah. waxuma kenn bu mu takk ñaareelu xale. mais per bu leen nangu ñu leen di dugal ci yenn yi man tey man paa lu tax ñuy dugg ci yii man jaaxal na day am luy xew ci guddi gi lu ma dul yëg man ci bëccëg wala lan la ba tax lu leen booy def loo ñu def ko. ma doo jël sa doom xay paa yoo xamante ni heure bi da war a fekk jumaa ja eh, eh, eh, booy teg leen ci kanamu tiktok bi di leen tegal ay son the best ñuy fecc <laughs> ak di xoolal xoolal paa bi muskalaf innocent innocent ci li vidéo bi tegal vidéo bi foog nga gis amul vidéo dama ko capturé rek bàyyi non paa bi booy baa ngi fecc mais paa bi mënul sax fecc ndeysaan ñàngal di aj garambu bi mu leer na ne kii li muy def nii sañ ta bañ <laughs> ah ku sañ a bañ sañ a nangu ku sañ te bañ sañ a nangu. Ah, wax dëgg man nag li ñu leen di def ba sañu ñoo bañ. te paa yi paa bi ko xool xam ni kanamam gi kii fulla ak faydaa ngi. xale yi tey yéen yéen a ànd ak seytaane. paa am na mais mag bu toog rek la ngeen yëngal. Oh, damay dugg ci commentaire bi bind ci saan <laughs> le papa de quelqu'un. aywa aywa aywa aywa ko moom aywa sama papa sama papa yàlla bu mu dugg ci lii. ça c'est la force de ci lii. mbëggeel la <laughs> moo tax heure bu ne rek ma xataraayu xeex lii laay bañ. papa tos a ngi nii di tiktok laay bañ. tos kaay papa tos a ngi nii ñuy fecc loolu. loolu dafa am am lu wax ci dëkk. ma doon wax tubaab dafa am lu wax nee na. celui qui n'a pas atteint l'autre rive. waaw kay ne doit pas se celui qui n'a pas traversé ne doit pas se moquer de. de celui qui n'a pas man je vais pas traverser ces gens de. yow yaa ngi dem ngeen garde vidéo bi man man je suis strict de. amagoo jabar wuyu ma yéen yéen seen génération yéen yéen ngeen ci maire leen teg dugal leen. mais est-ce que maire yi dinañu ci togloo. <laughs> yaakaaruma ko de ñun ànd nañu fu laak fayda en tout cas amagoo jabar affaire mairie affaire yi xale yi nga xamante ne ñu ngi fréquenté ci mairie bare nañ de père dama am ay cas yu rëy dafa xam ne yoo xam ne mënu ma ko jàllale mais am na cas yu rëy père ànd leen ak Pastef ci li ngeen def ah waaw baax na <laughs> xaaruma nuyu sama benn xarit man <laughs> parce que paa yi dañu ne man qui aime prendre son euh, café le matin ah. père père père père taal ngol ngol bee ma génn dafa dafa am lu ma toog si côté école noonu benn paa ñëw. <laughs> ci fenêtre bi. Mhm. ne day xool xale yi ni ñuy jàngee ndax ñu mu ngi jaar yoon. wala jaar yoon ñu waa élève bi monsieur bi posé question ne ko 2 plus 2. Mhm. waaw élève bi ne égal 5. Mhm. ëpp na rek paa bi yuux. Oh. non mais dëkk bi yàqu na. dëgg <laughs> jàng bi changé na dëkk bi léegi lépp lañ yokku lépp lépp lañ yokku. ñun suñ jamono 2 plus 2 égal 4 la woon. mais léegi yokk na jibeen ko léegi cinq la léegi ko dëkk bi yëpp a yokk moom remettre remettre na boppam en question moom jàpp na ni moom dëkk bi moo yokk pas boobu bu dul pertaal ngol ngol dina ma jaaxal mais maane Mané mënuñoo dem te remercier wuñ ko. waaw waaw wax dëgg fa la ñaancoo national. Mm-hmm. ñaancoo international. Mm-hmm. rien à dire. Sadio yaa baax moo bon. Mm-hmm. fu Sénégal mës a sëggee. dem nga fa nga siggil ñu fa. Sadio lenn rek nañ deseel. mooy lan Sadio dimbali ñu ngir yàlla nga takk soxna. ay ay waay génne leen ci Sadio mi war a takk jabar. est-ce ko jig tamit. est du lii moo ko jig. damaa seetaan. bébé dinañ la maye force awards bi. waaw ku ne góor yi ñëw ànd ak seeni soxna. couple. ça fait Sadio yow yaay Sénégal TFM miroir du Sénégal waaye Sadio Mané tamit miroir du Sénégal. moom dëgg la. c'était l'occasion que Sadio Mané wan au monde jigéenu Sénégal nan la mel c'est officiel quoi. Ah. non jigéen jigéenu Sénégal lay exposé ci podium bi. yow pour yow critère u naka la war a mel. Sadio euh, bëggal naa ko benn taille fine ah. taille fine ah taille fine. ah mais je préfère taille fine. parce que bu bu ma lu diis Sadio li mu yanu rek Sadio li mu yan rek dafa diis. équipe nationale yaakaar la Bayern ni yaakaar la. coupe du monde bi di ñëw ñu jox ko fi taay luur. pour lan taay fiin. yàlla élancé teint noir surtout teint noir. Hmm? waaw na am dagg boobu noonu. chef bi quoi bul fàtte Sadio ndaama la de. te booy boobu du dem Allemagne de jabaru Sadio Mané boobu fii ngay toog xaar bi ah, ah. ah. xaar date FIFA ak match entraînement. parce que waaw waaw match officiel soxlawuñ la fa. <laughs> wóorul saajo Mané dañ koo soxla ba ci kanam mais Sadio yu mel ni bu amee. boo mënee luyee sax luyeel benn fii sénégale nga yóbbu ko exposé ko ñu xam suñu jigéenu Sénégal nu nu kii xam naa Abba moom mooy ñëw tontu ko. parce que moom dara ku laal ki nga xamante ne moom moo di Sadio moo ci dugg. non il faut ñu kii ko je pense que lii il faut ngeen kaa ko biir Abba Sow. mais en parlant de Ballon d'Or bi aussi Ballon bi tamit duñ ko génn te demuñ ci ki nga xamante ne moo di Karim Benzema. Ballon d'Or bi ah, lii lii dafa reflété loo xamante ne lii lii maanaam. Mhm. Euh, lii dafa yeete lu bari ci àdduna. Mhm. gis nga nit. Mhm. ak say nit lu ñu mënti am. yéene leen ko. waaw nekk ci ginnaaw. Mhm. nangu saw mbaaxu waaye. wàññiwul dara sa mbaax mhm. Mhm. kii def na lu nekk ci football. dëgg la. naqar bu nekk dund na ko ci football yéen a ngoy gis ci ginnaaw ne. di taxaw di tàccu. mu taxaw di tàccu. di yëngu ko jural lii tey ñii ñëpp. ñu récompensé leen moom kenn récompensé ko parce que boobu heure am jotul. mais taxul mu siisu. Mhm. taxul mu frustré wu taxul mu def dara mu ngi taxaw seen ginnaaw di encouragé xam ne un jour viendra moom heure am dina sonné mhm. toppul tamit ki nga xamante ni moo di Mathieu Valbuena <laughs> Valbuena def na ko lu nekk France ba ñu dàq ko. Ah. génne ko fa. coono bu nekk mu dund ko fa. te ah. taxul mu bàyyi. tey mu ngi nii récompensé na ko mhm. ni ko gars yi di waxee rek. jë est grand Valbuena est petit. <laughs> comme il est petit nag macha allah. nañ gën a góorgóorlu. yàlla baax na lu waay am. yéene ko ko te xam ne un jour viendra sa heure dina jot wasalaam effectivement donc comme ni mu koy waxee rek wax dëgg fa yàlla il donne des informations dina ci def li nga xamante ne moom moo di touche du mot waaye léeg-léeg dina ci wax loo xamante dafa am solo et comme on dit que fi ne nii li nga xamante ne moom moo di jeunesse bi ëllëg ñoom ñoo war a réew yore réew mi donc des jeunes comme ki nga xamante ne moom moo di Toch c'est très important le message qu'il nit lu mu am rek dee ko ko yéene tôt ou tard yow it nga gëm sa bopp bañ a